ragal na yàlla buur bi tey kile moo di boroom xam-xam sa moo di yaaram mooy doomi Bàmba sa tub mamaaram moo di sunub sëriñ ta mooy sunu yaakaar moo ni fegal jaxanama ba dun ca jaar moo am ngërëm ak gi yooyaana kii borom mu nangu laar ni fegal jaxanama ba dun ca jaar moo am ngërëm ak gi yooyaana kii borom mu nangu moom mi jubóog yàlla boroom kun fayakoon am na wilaayatu te am na xar baax ragal na yàlla buur bi tey kilee baax moo di boroom xam-xam sa moo di yaaram mooy doomi Bàmba tey satub mamaaram moo di sunub sëriñ ta mooy sunu yaakaar moo ni fegal jaxanama ba ca jaar moo am ngërëm ak gi nga yooyaana kii mooy boroom mu nangu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 lii nag benn reportage la bu waa kër boroom xaas TV def jëmale ci seenub sëriñ ginnaaw ba ñu jotee ndigal li ci moom sëriñ siidi Mbacke boroom xaas moo ngi gane ci àdduna ci atum 1982 fële ci waadaan ah, béréb bi nag laaj fi kan mooy sëriñ Sidi danañu neex lool ndax dañoo mën wax ne sëriñ Sidi moom mooy mooy sëriñ Sidi sëriñ Sidi dama bokk ak yaayam ndey ak baay ak mama maam man ndey ak baay may seen rak nefi wa ah, waaw ba ma fi tim nekk fek sëñ Amadou ak sëriñ mama ak bàjjan Binta sëñ bi yëkkati ko jox ko Axam Amar Fall Mbacke di bay wajuru sëñ Sidi. soma laye lolu ci sëñ Sidi Mbacke borom xaas dama ci sawar ndax sëñ Amar Fall Mbacke indu bàyyi sëriñ Sidi borom xaas sëriñ Baaraku Sering barang mbàkke khadim rasul khadim rasul mam mor anta sali ma ca balang maram ay saak mam maam jaara buso Sengsi ca porxan serigne sidi mbàkke borom khas soxna binta sugu yaayam serigne amadou tasrif ko jur serigne amadou tasrif mom lañ soxna matu sugu mu am ca serigne mamma sugu am ca soxna binta sugu yaay serigne sidi borom khas am ca soxna Touré. dem caat ñoom nag soxna matu mbaalo sugu mii seen ndey Ibrahima matu ko jur mook sëñ jéeri waa daana bokk benn bàyyi ci bokk ñu ndey maa ko yaral saa boppit nag maa ko indiwaalaat teg ko ci loxol ndeyam di leen teete di leen teete di leen teete ba mu man boppam kero ba mu mënee boppam ak tayit siidi musuma wax lu ma naqari musu koo def musta def lu lu ma yëgul lu ko digloo digal euh, liggéey bu may liggéey it dana ca sonn. fii la ndeyam juddoo fii la ndey ndeyam bàyyam ndeyam yëpp juddoo kon wetu ndeyam kër ndeyam yëpp fii la may ni jaayam bi mu ngir sëñ Tuubaa sama sëriñ man. waaw sëriñ Sidi nag nun noo ko jur waaye nag biñ ko juree ba noppi nag moom dafa wàññi ko waat defaatub taalibe ci nun sëriñ Amar Fall Mbacke doom ci sëriñ Baara mu mag moo di baayam soxna Bintu Sougou di doom ci Cheikh Ahmadou Tasrif Sougou mu Serigne Jéeri Wadaan di yaay lii moo def Serigne Sidi Mbacke borom xaas doon sët ci Serigne Bara Mbacke ak ci Serigne Jéeri Wadaan ginnaaw ab juddoom bu rëy bi demee ba mata jàng ki nga xam ni moo di ndijaayam di Serigne Bamba Soug moo ko dalal alxuraan fële ca Kanda Lambeng mu def fa ab diir ci la ñëw fii ci Ngaye Mékhé àggale ci daara Serigne Abibou Diop. jël fii di ko yóbbu ci daara ja ci gone gu ndaw surtu gone gu mbàkke mbàkke fekk téléphoné naa sëñ Abibou ba sëñ Abibou ñëw fee Kanda la bi ma jàddee jàdd Kanda jox ko ko dafa may sama nijaay waxoo moon lii de ma ko waaye lii laay def boobee ak jantub tey lu ma ko digal def na ko lu ma ko tere bàyyi na ko. waaw kook nga xam ne si nag da nga tudd muy Serigne Sidi mbakke borom xaas nga xam ni eh, ak ndawam lu baree baree bari fii la ko jaar muy ngaay gi yàlla dogaloon te mu nekkoon ci barab bii di kër daara Serigne Abibou Diop nga xam nekkoon na woon nañ fi ak moom waaye nag kooku bun ko tuddee dafa nekkoon si biir daara ji nekkoon te fi waaye doonoon kiimaan nag doonoon ku doy waar ko doonoon koo xam ne si ku sëriñ bi daan bàyyi xel la ndax moom dafa bari woon lu mu boole woon si biir kër gi dafa bokkoon sëñ jéeri doon fa sët waaye pare bokkaat sëriñ Touba. waaw sëñ bi da ka daan wax da ngaa séddu da ngaa séddu sëñ jéeri séddu sëñ baara ba pare sédduwaat sa maam sëriñ Touba kon cër yu booy yooyu noonu nga boole moo tax mu doon kiimaan ndax ku ku teel a feeñal kiimaan la si biir daara ji ku ku fi daan ku koo xam ne sëriñ ku ko daan ku ko daan bàyyi xel la si lu bari. daana toog ba mu yàgg mu woo la ko. am yàgg ak moom lool ay ay jataay. ngir waxtaanee moom. waaye nag koo xam ne si ku yàlla teel a dimbali si alxuraan mu teel si amul may lool. de defen ko fi amee ko fi awen mu rafet ba yàlla li yàlla dogal doomi soxna mooy teel a mën alxuraan teel a bind kaamil teel a am xam-xam ba yàlla dogal li nga xam ne si nekkoon na ko fi ñu ko daan ñu ko nekkoon doog moom dëgg yàlla si si yar si teggin si mën a dimbali si mën a yaatal eh, ak boole moom lu rafet rek moom moo ko ñoroon alxuraan moom moom dañ ne mbiram la moom mbiram la woon da koo bëgg woon bëggal bu mu ko bëggaloon boppam moo tax taw taw feex jëm si am sun borom mu mu am ko si ndax boo ko bëggee rek da si am taw feex joo xam ne si eh, lu la lu lay bett ndax teel gi mu ko teel man ak jekku gi ko teel a jekku loolu xam naa ndimbalul suñu borom la ak bokk ki bokk Serigne nga xam moom moom moom alxuraan waaw nga nag Serigne Sidi moom tabaarakal ni mu mane ni ni mu wuute woon nit ñi si alxuraan ji rek noonu la wuute woon tamit nit ñi eh, si ay jaamu yàlla ndax daana nelawal ñëpp ba nelaw mu tëju lu yàgg si jàkka ji wala mu dem barab bu wéet def fa lam fay def ba pare ñëw fekkaat gars yi si lal bi buñ jógee ñu jóg mu mel ni deful dara léegi na demoon na ba ba ba ba nemmeeku ko si moom loolu nag xam naa cër bu cër boobu noonu moom moom moom lu ko suñ boroom defal la daal moo tax xam naa ni eh, fa tabaarakallaahu moom moom lii moom mënul a ñàkk ñi xamoon kii mooy kan soppoon ko lool fonkoon ko lool sàmmante ak moom kóllëre nekkin wu rafet la nekkoon ak ñun nekkinu taalibe tout tànk la woon mais boo ko xoolee rek di nga xam ni kii du nitu kese boo ko xoolee ci ay definam ak i waxinam da ngay xam ni kii du nitu kese. tey jii laa la wax léegi nii sii Sidi wax naa sama doom ji nekk Thiès vocal baa nga ne bu leen neexul léegi ma tegal leen ko léegi nii nii mook ak sooda ci sama sama sët mu waxtaan ak moom loo xamante ni sëñ mook ak amul bébé bisu tey bii lii kon dara du hasard vocal baa ngee di tege. ñun mag ñi ñoo ko xam. mais tout tànk yi seen mbëggeel lañ am ci moom sopp ko te kenn du moom ñun liñu xam ci moom baatin bi ne ci moom tout tànk xamuñu fii la dalee baax ñu nekkandoo ci daara ji ma am chance nag sëñ Sidi nag bu mu ñëwee fii boobu maa ngi fi woon jour ba ko sëñ Bamba indee fi la ñu fekk indi leen moom ak sëñ Amadou Sougou mu sëñ Bamba ak sëñ Amadou mu sëñ sëñ Mama buñ leen indee ñoom ñett ñoo àndoon léegi nag ñu ngi ci nekk di def li ñu war a def buñ toggee ñoo leen ñoo leen daan tibbal maire bi mooy daan engagé fóon bi di leen fóotal ndaxte nee na moom da leen a bëgg si xolam sëñ dañ musaan a génn doxi mair bi da leen daan wëññi naan maire bu gàtt bi si kër gi moom sonal nañu moom chaque jour du ñëwee dañ koy wax léegi nag buñ demee ba ñu wàcc alxuraan tamit ñu leen toggal bañ may ban maa sibet dugub ja wante mais bi daa jógee fu mu nekk ñëw bokk a sibet ba ndax dañ leen di barkeelu te boobu mënoon nañ koo seet mënuñ koo dijjanti wante ma mosuñoo bàyyi ak ak moom lépp daal sëñ Sidi nag moom mu amit nag baax ndax du ñëw mukk te egsiwul fii ci kër gi xam na ni ci kër gi la wàccoon ba muy demit keroog it fii la waaj a dem ñibbi loolu am na Bamba jógee fii la ma fekk ba muy dem keroog bu ko sëñ Bamba di yóbbu fii la ma fekk balaataa mu fiy jógee bind na kaamil bi yëpp. toog nañ fii ba mu bind kaamil yut ma ma jël kaamil ba ànd ak moom dem Njaañ saa Géey fekk fa Seex Coro mi xalifa baayam ma ne ko sa taalibe bii kat moo bind kaamil bi indil ma ko ma di la ko yut si mu ma ñoo bokkal mm, mm, sëñ Amar Fall de moo ma ci jëkk a kaamil. kaamil ba ngaay la ko binde yut ko ko. sëñ Bamba la sëñ ma la àndal ñu dem yóbbu kaamil ba sëñ Cheikh wax ci boppam ne moom gone yi sëñ Mari kii moo ko ci njëkk yutub kaamil. moom sëriñ si. sëñ Bamba ñëw fa sëñ si di fekk ma fa ñu yor kaamil bi mu ñëwee sëñ Bamba xamal ko ne yàgg kaamil bi yëpp de sëñ Cheikh mii mooy sa baay mooy sa mag mooy sa wasila jox ko sa bopp yeesluwaatal te itam kaamil bi nga kii itam maanaam kenn moomu ko maanaam sëñ sax lañ koy jox yàlla ci baaxam ak kum nar a dimbale itam loole amul lu ci ciy sikki sàkk amul lu muy diddital dal di nangul nijaayam loole mu ko digal daal di sukk daal mooy jox boppam ma nangul ko ko mu jox ma kaamil bi itam ma nangul ko ko ginnaaw bi loolu mu wéy am na wilaayatu te am na xar baax ragal na yàlla buur bi tey kilee baax moo di boroom xam-xam sa moo di yaaram moo su suuf loo foo xool arxuraan la xanaa la mu fa bàyyi mooy fa muy toog jaamu yàlla jur ba ma gisee néeg ba si laa xam ni kii dugg suñu kër du ndaw sëriñ Sidi la di sëtu sëriñ Touba ñun ñu ay jaami Serigne Touba mu moom nu di sunu di sunu sëriñ waaye nag am ci ñun yëg lool ndax lépp loo gis ci àdduna rek yëg la waaw nee naa ko balay sa yow bu du boo sant woon Mbàkke sax doon sang ndax Serigne di yëgam ak bëggam ak baaxam képp ku mu bokkal sëriñ Touba ku mu bokkal Serigne Bara rek jox na la sa cër bëgg la lool te Serigne bi tax. mën njaboot ci àddina mooy góor gi ëpp sutura ci àddina. mooy gi gën a mën a teral soxnaam ci àddina waaw ci ci njabootam mooy sëriñ Sidi moo moo mën ci lépp mbërum yàlla ci kaw suuf bu féete kaw sëriñ Sidi amut mbërum yàlla waxuma la mbër mbërum yàlla laa wax fii guddi yu ñu toll ci xarnu bi ñu ne bu féete kaw sëriñ Sidi la lazi laa ilaha illallah barki cheikhul xadim amut ni nu xamante bi ma ñëwee làmp présenté ma ko ndeysaan mu mu laabiir loolu maa ngi ko fekk boo duggee ci kër gi ca néeg bu mujj ba man boog fa ko fekk te fa daan ne bi ma ñëwee ma nuyu ko ñu siyaarante ndeysaan mu ne ma loo tudd ma ne ko Ablaye Fall laa tudd waaye salaam yaaram bi lan may woowe ndax damay musique musique laay def artiste laa mu ma yow sa tuur bi sax dafa yàlla we yow de def naa la xarit na ni ànd fu nu demati ma lay jox micro ngay wax ci mbaxum serigne touba ndax deg na say jalor mom bi loolu yep jalle dafa genn senegal dem mauritanie te loolu lepp liko waral modi outi ji xam-xam bu sen ngir mën si jariñ mindeef yi sama diggante ak euh, serigne sidi du yag la sama diggante ak serigne sidi yàgg gi moo di fu ma kaa wéer moo di fi yàlla waxante ak ñun ñu kaa wax alquranul karim ndax yàlla mu màgg mi moo wax ni yaa ayu alladina amanu taqullah wabtau ilayhi wasilata ni wa jaidu fi sabilillahi laalakum tuflixun ca maida bi mu dellusee jugul ci jabanté fi di waadaan dëkkub wajuram bu jigen ak fi nga xamni modi moo di fi bayam Amar Fall Mbàkke nekkoon cheikh Sidi borom xaas yalla na ko suñu borom yagal tam ànd ak di sama xarit di sama soppé di sama lepp di sama idolit manam sama kay la Euh, daf may beesal maanaam bu dul ma ko gisee mais bu ñu ko tuddee rek daf may beesal parce que maanaam euh, day nit koo xam ne ab jàngukaay la sëñ si di école la euh, neexut a xam ndax école mooy nit koo xam ne boo ko déggee am bind soo ko gisee am bind soo ko seenee muy dox nga am bind soo ko déggee muy wax nga am bind soo ko fekkee mu toog doxut waxut nga am bind lu jafee xam la na te loolu lépp dara waralu ko lu dul ab jaayante bu mu doon def ci baayam ba noppi jébbalu ci moom Serigne Sidi nekk koo xam ni dafa am yir yërmande ci ñépp te bëgg-bëggam moo di dimbali jàmm ñi man mii de jamono yee yàggul dara sama kër gi bi yàlla dogalee maanaam ñu am miir buñ ci waroon a miire te mool ba pare mu ñëw fi genn ngoon ñuy waxtaan bu mu yàgg mu ne ma ah sëñ bi yow sa birig yi daa mel ne taqaleegun ko de ma ne ko déedéet dama doon xaar ay maçon yu xaw a woyof rek ma kii ko mu ne ma kon nañ ci gontu tey te diggante une heure di lañ ko waxtaane biñ ko waxtaanee noonu mu daal dem woyu ñoom siidi keroog moom ci boppam moo takkaayu tàngale kafe yi këram ñu indi ñu avant cinq di jot fondation bi moom pare na bañ xëyee suba laataa ñuy daal timis man sama miir taxaw na lépp miire nañ ko te te li ci gën a doy mooy li ma la wax léegi du joxe ndigal dem toogi mom day takkaayu di xaar bam paré pare feeg liggéey bi wul mu ne ma ñaanal leen tak ak Baye Fall delu wat kërëm non la ko défalé waa daan nak euh señ Sidi bi mi doga joggé ci daara ji dem nek ndar itam di jang ba yalla xir ko ci légui mu fas manam li nek ci deun manam mu koy wone manam beut man ci loxo man ko laal euh, da doon defar ay teranga di andang ak mi euh, fu fuma nek mu fekk ma fa fekk na ma fii ci Touba sama kër gi ci Daaru Xuddus màggal da daan def ay teranga di ma fekk guy mbind ànd ak mbooloo mi fekk na ma njaañ fek yi ak i teranga fekk na ma Mbàkke Kajoor ak i teranga mais ba muy doog a tàmbali liggéey boobu noonu rawatina ci màggalu Touba heure bu ñëwee ba waajal teranga yi ba ba jëmee si ko ci man bu ñëwee bu ko yanoo ak na muy def ba di ma ko jébbal faaw samay rangooñ dina rot ndax booba man sëñ Amar laay gis waaw. ku baax la ku yaatu la ku yiwe la waaw ndax man na ne da ko judduwaale waaw li nga xam ne si ni ay jikko la ci moom wax dëgg yàlla loolu yàlla waxoon yonent bi rek wa innaka la ala xuluqin nekk na ci moom kero ba muy dem ci cantu kër Balla gi dafa gaareb otom wàccee fii lépp nekk ci wana wi di sangu maa ngi koy dégg bi mu ana sa yaay mu ne ko yaay day sangu mu ma lip na dem kër Balla bima ma mu ne ma likat kat sëñ Siidee la ko jox dama dox ak sama tank ba kër Balla Baye Sala ngi tok ñepp ngi tok ma ne ko mbacke sant na la tent go xamni ne am waye amul fu mu yam waye ci da ngeen gis nit ko xamne ne bu euh, biko bi ko di gis. fi mu toll woon ak bi mu ñëwee ba laalanteeg sëñ Sidi fi mu toll bu ko xooloon foofu du fa bari morom foofu xam naa ko ndax ndax xam naa ko xam naa ñu ma àndal day ñëw maam ñëpp wan la ginaaw kenn bëggatu laa jege mu ne la góos bu ñëwee maam ñu di la xëccoo kenn dootu mën a jot ci yow loolu bokk na ci lu ko yàlla jagleel. gis nga man miy wax ak yow feebar naa fii ba ne làcc tëdd bin may jëlee fii di ma yoobu Kébémer moom ci boppam sax moomu dugal cootaam. départ ak man fii jëm hôpitalu colom ñu naan ma man danaa yegg wala duma yegg moom ci sëñ Sidi Mbacke borom xaas mooy dawal oto bi moom ci jëmmi boppam di daw di daw bu mu jàgg bi sofe mu taxaw ñu wut ndox dolli ci radiateur ndox bi ba oto bi sedd mu ñew fi ma nek mu sëgg ni ma man ko faara mu ni ma no def man ko ah yefi de dafa metti rek mu ni ma xana xamu ni man gisuma sax dem borom xaas sama ko wax de barke sëñ jéeri borom waadaan man duma fen duma triser duma xam duma ci wax dara sëñ jidi ku and ak mom yegg ci yalla ñun ñii ak mom fi duñ fa jog buñ toogam yàggum daw na fa daret yalla dimbil na ma ci moom fi ne lu ma soxla buma yegge yeggee ne ko mu yow jëru ngay soxla dara lool soxla yónneel ñew jëru ngay ñew bo ñewé ma jox lako ko jidi Sidi fa soxla suma yegge ñu jox mako dama ko yone fi ci kër gi te duma dem ngir yalla ak yonent bi ak mamam tok nañ fi ba mu bind kamil yut ma ma jël kamil ba and ak mom dem Njaañ sa geey fekk fa cheikh Coro mi khalifa bayam ma ko sa talib bi kat mo bind kamil bi indil mako ma jël ko yut si mu ne ma ñoo señ Amar Fall de ci jëk a kamil dang ko wara japp bu baax bëgg and ak mom taxul nga and ak mom bëgg ànd ak moom taxul nga ànd ak bu sëñ bu siid borom xaas bëgg ànd ak moom taxul nga mën a ànd ak moom ay nitam yàlla moom moo la ko tànnal boole kook ñoom kon loolu tawféex la kon da ngeen a xam ne aw ay tànneef ngeen ñu leen booleeg sëriñ siidi waaw kon nag am na si loo xam ne si nag moom duñ ko bëgg a wax ndax bu ko déggee xëy na du ko kii fa tabaarakallaahu moom lam doon mate na ko sëkk mm-hmm. yàlla koy ñaanal fa mu jëm moo ko xam yàlla na ko fa soroon àggale liggéey bii mu liggey ngir yàlla ak yonentam liggéeyal maam Serigne Touba ak sa njéeri mhm. fa mu ko bëgg agale yalla nako fa sun borom dimbali defal ko kàttan ba mëna agale a ko gëna a kawe Serigne Sidi dafa bari yu muy def yo xamni ëpp na di wax ci lamine mhm, ndax li may wax ni dal na ma ñu and voyager mat ak mom mooy doomi Bamba sa satub mamaram mo di suñu serigne tamoy suñu yaakar mu ni segal jaxanama badun dun ca jaar mu am ngërëm ak gi nga neen yooya bi ñu taxee mu ne ma mu tok fa ma toogoon hmm. ma tok fi mu toogoon bi di dugg ke bi hmm. ñu génn mer ñu yam ci accident bu yeme. Hmm. deret tour ci kaw tali mun ma Ahmadou mané ko mbacké mun ma li la la doon maytu indina agn suñu kër ben boli ceeb boobu seexu naa lay cantal góol bi ñu koy séddal rek mu ta jeex. man j'en suis la preuve ci Serigne Sidi li mu mën ci àddina ndax bi may xam Serigne Sidi dafa fekk ma tolloon ci jàng nekk xale yàlla dogal ma toog bis boobu maa ngi ca la ne woon xew miinaguma lu mari jotaay yi ma toog ba mu yàgg jooy ne ko diggante bi ma commencé di ànd ak yow ak léegi bi ma la xamee ak léegi yàlla dafa dogal ni ma waroon di jàngee sax université ak léegi jàngeetuma ko. mu tok ba mu yàgg sëgg si gi Serigne Touba lay jël sédé ci li ma lay wax mu ma bis na tay jaratul ngay jang lo xol ding ko mokal ni la démé man bi may génn université bi may def troisième année may doon soxnam mention la fa am. moom mo tok ba mu neex ko mu ne ko Mbàkke dégg diw dañuy jël mu ma ah, bindal sa kay jox len ko yii bac plus 4 lañuy laaj. mu ma yow <laughs> ma ko moni ma yow lo am ma ko ah man di sama CV yakarna jabaraki jabar ki dom mo ci gëna reuy mun ma soo yoon nekku ci loolu bindal jox leen poste bi su ma juumul ëppoon na ñaar fukki doomu aadama ak lu teg lu koy wut bi ma demee man lañ ci jël defal ma ñett entretien jox ma ma di ci liggéey di ci nekkal leen fii ci ndar mu taawlu ca muy sëñ muy ku jigéen kooka nelaw ku jigéen laa njëkk am bi mu ñëwee moom ci jamono sam jàng wax daf ma ne jigéen du ma jiite moom sëriñ Sidi daf ni la jigéen di la ju ko jigéen du ma jiite. du ma jigéen du ma topp ci moom mooy topp ci man waaye du ma topp ci moom jigéen jooje taxawut. doom ji jigéen ji man. kii mooy borom mu laar mu ni segal jaxanama ba dun jaar mu am ngërëm ak. jàmbaar ji léppam da jël def ko ci sëriñ Touba ba mu jeex. te soo ko nee danga naan waayu Cheikh Ibra jaa ngi nii kon mbokk yi ñu ngi kontaan ci seen teewlu reportage bi nag képp ku ko bëgg seetaan déglu ko ba mu jeex ak témoignage yu am solo yi ci biir demal ci sunu page YouTube bii di waa kër borom xaas TV te bul fàtte aimé waaye tamit na nga abonné kon jëre ngeen jëf ñi ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal màggalug jàmm Cheikh Bara Mbacké ki taalif Bunyaan yi mën na diwaan ku dégg Bunyaan yéem sëñ Bara sëriñ Bara jënul jàngaani tanar Qur'aani jaxal nga waane Cheikh Bara doo xam di fakku foo dem ñu jokku yaatal nga bokku Cheikh Bara Mbacké yow yaa waa bari baatin xaajoo ca la gën pes del ak baatin Cheikh Bara Mbacké